dafa def aw kaanat wala mu nekk min huma ci ñoom ñaar waaye ba tey moom it aw kaana rek bañ cee boole at mu gën yell ni ki ni nga waxoon ci ama isa lam tëkku ba tey ama isa lam yëkku moo gën a yell ji boo seetloo la wax ci haza ida zahara saa yoo déggee rek nag nu wax ne nangam moo gën a yell danoo jàpp ne xëy na ka bind moo ko soppi waaye jubluwul a wax ne sëñ bi kat nam def nangama gën a ne yàlla ci mu def ko déedéet wa zakarahu te mu fàttaliku ko ko xabla xaq bi saalisatin ci njëkk fas rakkam ñetteel kooku ba tey fal baax yi sujjootu baax da rek moo koy war id ngir lam tafut rawut suuratuha saaram wa walal juloos du caa jataay ba nee bu fekkoon ne farata ja nga bàyyi da nga ko bàyyee ci ràkk bu jëkk mbaa bu ñaareel waaye nag tel nga ko fàttaliku laata ngay rukkoo bu siggi ci ràkkam ñetteel kon su boobaa saar du raw ci taayu taayu digg ba ba tey du raw ndax ni ma ko waxee woon léegi bu fekkoon ne ba nga taxawee ci ràkkam ñetteel laata ngay sëgg rek nga fàttaliku ne ah man kat sama ràkk bu jëkk bàyyi naa ci farata xam nga kon na ngay daal ne bu ñaareel bi soppiku na bu njëkk bu ñetteel bii nga toll soppiku na ñaareel te xam nga yaa ngi ci taxawaay bi kon na nga cee jàngaale saar rek kon kon saar wa ñëw na te it ràkk bu jeexee nga toog foofu taayi taayi digg moo tax mu ne su fekkoon ne bàyyi nga farata ja yaa ngi ko bàyyee ci ràkk bu njëkk baabum ñaareel waaye nag teel nga koo fàttaliku njëkk ngay fas ràkkam ñetteel ba tey kon sujootu ba salaam dong ngir sujoot ndax ndooleen dong moo fay nekk saar wa du raw jataay ba itam muy jataayu taayu digg ba ba tey du raw laakin na fii waaye mile masala daqiqatun aji seew la maanaam aji jan la li ma ñeel ka nga xam ne yaqiisu dana xiyaas masala moomu nag nee na xaw naa xereñ mooy xaw naa jan xaw na naqaree xam tuuti waaye boo ko teyloo bu baax a baax nii ko làqar je yaakaar naa ne danga ko mën a jàpp bu baax a baax man nga takkaale foofu nag ne saa yoo fàttee farata ci ab rakk rek lay tax wàññi ko def ko wees mooy nga jàll ca rakk ba ci sës ba rukkoo ca ba siggi ci rakk yépp nag ba mu des ba ca mujj ba ca mujj moom ndegam beneen toppul ci moom lay tax farata ja nga ca fàtte doo ko mën a wàññi def mooy nga xas sëlmal sëlmal goo xam ne da ngaa jàpp ne julli ga mat na rakk ba ci mujj moom boo ca bàyyee farata lay tee nga mën koo def mooy nga dem ba sëlmal sëlmal boo jàpp ne julli ko mat na waaye mooy itam li fekk sëlmal agoo ba sëlmal nga waaye da ngaa juum rek nde jàppoon julli gi mat na ko daal di mën a def farata ja bàyyi ca ràkka bu mujj boobee nag ràkka bu mujj ba ci bàyyee farata ba wax asalaamaaleykum boo xam ne ngaa jàppoon ne julli nga mat na kooku doo indi farata ja nga bàyyi ci moom dong da ngay indi ab ràkk bu lëm wecc ko wa sahwu juum fil qadaay ca fay ga yaa xalili yow sama xarit ka sahwi mi ngi mel ne ki juum fil adaay ca joox ga fil man xooli ca lañu toxal nee na boo doon fay julli gu la raw juum ca moo nga doon julli ca waxtu wa juum ca ñoo yemoo rek amul genn wuute na nga daan defare njuumte ci booy julli ca waxtu wa rek noonu ngay defare boo juumee ci fay julli gu la raw wa man yusallim ku sëlmal maha shakkin ànd ak sikki sàkka fii kamaali salaat yi ci matub julleem nga fa batarat kon yàqu na fii maa la nga xam ne yuqaalu def na ko wax nee na boo dee sikki sàkka sa julli gi mat na matut dañoo waxoon ne kon booy sikki mat naa matut da ngay jàpp ne matut daal di koy mottali maanaam la ngay sikki sàkka nga def ko mu wóor ne def nga ko kon nag booy sikki sàkka sa julli mat naa matut nga daal di wax asalaamaaleykum kon la nga defoon lépp yàqu na ngay tàmbaliwaat wa sax wu juum fii naafilatin ci naafila ka sax yi mi ngi mel ne ki juum fii faridatin ci farata illaa li sittin dara ñeel juróom benni masala xaddita fi yooyu danañu dikk ne boo dee naafila juum ca moom nga doon jul-juli farata juum ca ñoo yemoo ba des na juróom benni masala yoo xam ne boo ci juumee ci farata boo ci juumee ci naafila du bokk dana wuute mooy yi mu lay bëgg a wax fatihatun fatiha wa suuratun aku saar wa jahrun ak biral wa saydu rakkatin ak yokk ab rakka kazaaka naka noonee sirun yalu wa hakaza niki ni nisiyaanu ba'di rukni fàtte lenn ponk bi sharti toolihi ci sartub yàggam nga kama mat ni na mu nekkee ci yax ba nee na boo bàyyee fatiha ci jullik farata ak boo ko bàyyee ci naafila du benn boo bàyyee aw saar ci jullik naafila ak bokk ko bàyyee ci farata du benn yàlla biral lu ci nekk itam boo ko bàyyee ci farata ak boo bàyyee ci naafila du benn ba tey yokk ab rakk dana wóote ci bu amoon ci farata ak bu amoon ci naafila ba tey fàtte lenn ci farata yi julli ba mu yàgg nga door koo fàttaliku ba tey dana wóotee ci bu dee ci farata ak bu dee ci naafila mu teqale la ko nag fa man na si ku fàtte kitaabi ndeyu téere bi te mooy fatiha wa zakara te mu fàttaliku ba antara koo ci gannaaw rukoo wastaqarra te mu sax bi naflin ci naafila falyatamaada kon na wéy kon na wéy falyatamaada kon na wéy fii salaat yi julleem nga itan boobee suma sujoodu xablihi topp sujoodu xablaam ba yu mu def na ko sunnaal la wëññeel ko nee na bu fekkoon na ngay naafila am rakk boo xam ne jàngoo ca faatiha te yeex koo fàttaliku ba xës rukkoo kon gannaaw ba dangay jàpp ne faatiha jaraaw na nga jàll rek te sujoot sujootu xabli salaam nga xam ne kon bàyyi nga nga bàyyi faatiha ca naafila ga sujootu xabli salaam ba moo koy wecc defar ko loolu nag bu fekkoon ne farata la du demee noonu mooy bi xaq si fardin ci safaanu farata innaha naka moom yul xiixaa dana ko wàcc waaye yasiiru te muy dolli uxraa beneen ràkka fiihaa ci julli ga badal muy ak wecci waaye tamaadaa te muy wéy nekk zaaka loolee woon taw di xooxoo leeralam nga xonaaka foofee bu fekkoon ne day julli farata nga fàtte caa jàng fatiha ba booba ràkk fasu mooy nga rukkoo ba siggi door koo fàttaliku kon na ngay jàpp ne booba ràkk bokkutul ci julli yi dañoo waxoon ne booba ràkk da nga koy bàyyi ba sës ci moom wecc ko soo jullee nag ba àggal nga xool ba xam su fekkee na nga jàng woon ci gannaaw ca ba nga fàttee sujjóot ba dooleeg ñi tase na fa nga sujjóot xable salaam bu fekkee ndolleelul kese moo fa nekk nga sujjóot ba'da salaam loolu la jublu ci kama mada tawdihu hunaaka nga sujjóot xabla salaam bu fekkee ndolleelu kese moo fa nekk nga sujjóot ba'da salaam loolu la jublu ci kama mada tawdihu hunaaka wa in nasiita ndem fàtte nga suuratan aw saar aw jahran wala biral aw siran wala yalu wa anta te yow fii naafilit nekk nga ci naafila zumma zakarta topp nga fàttaliku baax da an rakaata ci gannaaw ba nga rukkoo famdi kon na nga wéy wala xaleka te déddi la war an sajata ngay sujoot nee na bu fekkoon na nga doon naafila nga fàtte caa jàng aw saar mbaa muy biré bu biral nga fàtte fa biral mbaa muy biré bu yelu nga fàtte faa yelu ko nee na gannaaw ba rukkoo ba noppi door a fàttaliku ne a ah, yow kat bàyyi ngaw saar mbaa yelu mbaa biral waaye lépp naafila dong la danga koy bàyyi noonu rek dara du la jawar loolu na xam nga wuute naag bu fekkoon day ci farata moo tax mu naa bi xaq si law xadin tara ci safaanub doon te gaaroon na muftaridan mbir mu ngi aji julli farata fa innahu naka moom yas julli dana ko sujjóot kama mada naka mu wéye woon nee bu fekkoon julli farata la moom boo ci bàyyee yelu am na sujjóotu boppam boo ci bàyyee biril am na sujjóotu boppam boo bàyyee saar wa nag moom di ceeb da nga bàyyi yetti sunna te su boobaa dana war sujjóotu xabla salaam da gis nga bu ci naafila moom dara waru ja wa man xadd xaama ku jóg ilaa saalisati jëm ci ràkkam ñetteel fi nafli ci naafila fa in zakara dem fàttaliku na xabla an xaqada ci njëkk muy fas rukkoo xaxoo rukkoom ba waxoote moom fas rukkoo ba kat rafu rasi mooy yëkkati bopp ba xunaa fii mi na rukkoo xi tukkee ci rukkoo fil xiyaas ci xiyaas rajaxa kon mu dellu jaalisan mbir mu muy aji toog limaa ngir li nga xam ne yuraamu def na ko sàkku tàmma foofee wal yas judante ne sujjóot li sax wii ñeel jamoo jam ba mooy ñeel juumam nga rek bax da salaam yi ci gannaaw sulmal ba lee mu ne nag waxuwa rafu rasi maanaam booy jàng way wi jàng waxuwa rafu raasi mooy cosaan waaye way wee tax ñu koy jàng raasi waxuwa rafu raasi ndax mu dëppook fil xiyaas yi bu fekkee na nga doon naafila ba nga amee ñaar rakka ñu digal la toog taaye sëlmal ndax naafila ñaar ñaar lay doon yow nga fàtte ko ba nga amee ñaar nga jóg jëm ci rakkam ñetteel kon bu fekkee ne rakkam ñetteel ba jotugoo caa rukkoo ba sigi kon rakka bu fa soogut su boobaa kon da ngay dellusiwaat toog taaya su ko defee nag boo toogee taaya nga sujjóot ba xam salaam ndax yokk bi nga yokk ràkk ñetteel boobee nga woon door a wàññiku ñëw toog taaya loolu ndooleel la kon na ngay sujjóot ba xam salaam wam di wéyal nag wasitta nga dolli raabi xatan ràkk ñeenteel bu masjudan topp nga sujjóot xablan sujjóotu xabla wara da ndeem rot na baxdal xuqóodi ci gannaaw fas ràkk ba bu fekkoon na nag rakkam ñetteel boobee nga taxaw da nga caaru ko ba siggi door a fàttali ko ne ah man naafila laa nekk te amoon naa ñaar li am ñetteel la ko it ndegam rukkoo nga ba siggi da ngay rek yokk ca beneen rakk muy ñeent boo ci yokki beneen rakk muy ñeent nag bala ngaa sëlmal na nga sujjoot xable salaam te xam nga bàyyi nga taayu digg akub sëlmal ndax ba nga amee ñaar rek dañ laa digaloon ndegam naafila la nga toog foofa taayu sëlmal te defoo ca lenn da ngaa sëli ñeent rakk rek loolu nag moo tax nga sujjóot foofu xabla salaam kon loolu mooy àtte bu dee naafila loolu nag wóote naag bu fekkoon ne day ci farata moo tax mu naa biaak si lu yàqahu ci safaanub doon te dafa xew dafa tàbbi mooy dafa xew li man ñeel koo xam ne bi fardin nekk na ci farata fa innahu naka moom day kon yarjihu dana dellu ilal julus ci jataay ba min ma dakarahu ci waxtu wam ko fàttalikoo wa yasjudu tamit sujjóot ba'da salaamihi ci gannaaw sëlmalam ba li say di ngir ndolleen yaridu loolu dana rot nee na bu fekkoon ne farata woon moom bu ay rakkaam xasee mat nga jóg jëm ci beneen rakka di ko yokk saa yu yëgee ne rek rakk boobu nga taxaw ab yokk la rek moo xam jot nga jàpp ci say wóom ba siggi moo xam ci ba nga taxawee dong la te sëggagoo lépp ñoo ci yemoo moom daal boo xasee xam ne li mu ay farata yi matoon na baraka boobee nga nekk dool la da nga daal di bàyyi rek ak foo mën toll da nga daal di bàyyi boo baraka ñëw toog taayir sëlmal te sujjóot ba xamdu salaam waaye doo ko àggali mukk moom moom ràkk boobee loolu nag gis nga ne kon na ceeg naafila waman nasi ku fàtte min naflihi ci naafilaam nga rukkanan ponk zahara ba feeñ na mis lay rukkoo xin kem aw sujjóot wala ab sujjóot yow atabar boobu def na ko xalam wala yaqa te tàbbiwut zikraahu fàttalikoom nga xataa sallam ba mu sëlmal wataalata mu yàgg foofu kon moom laa ulsima déefu ko waralal déefu ko waralal layaadan dara nee na boo doon la fàtte ca farata joodi fut niki rukkoo mbaa sujjóot ba sëlmal tum xasi yàgg kon danga koy bàyyi noonu rek du aajowoo nga di ca def dara loolu na wuti naag farata moom lay bëgg a wax bi ak si law haza ci sawaanub doonte lii warada rot na bu dee ci naxu dee su mën wax bi ak si law haza ba tey bi ak si law warada jéngay seen ci sa bët boo ko waxee bëgg cee teg haza ji mu jiitu ko dañ koy bañ waaye loolu nag am na ñu koy teqalee ci naxu waaye ki toll fii moom mën naa jàng rek na yombe ci moom rek ba àgg ci boobu teqale ci naxu moom tor koo teqalee noona kon mën na rek bi xaq si law haza ci safaanub doonte lii wara da na fil fardi ci farata mbaa mu ne bi xaq si law wara da ci safaanub doonte rotoon na haza lii fil fardi ci farata fa indaxoo naka moom yoo dana baamu xam xam ci lu dog abadan faawu nee na boo julli farata fàtte ca ab ponk maanaam fàtte ca farata ba sëlmal te mu yàgg boole ci kon julli googu yàqu na faaw da nga koy julliwaat kon nag gis nga ne loolu wuti na ci farata ak ci naafila bokkuñu dara dara wa kullu man képp koo xam ne xatax dog na naafila te naafila xam dañ ci tey aw tarak wala mu bàyyi min xaa ci naafila ga rakxatan abroko aw saydat mbaa ak sujjóot xiina shara xiina shara ci waxtoom ko tàmbalee fal yu ay dihaa kon na ko baamu abadan faaw id ngir xat bu xaa waram nga baax da surooxe ci gannaaw tàmbali nga xadd ba daa feeñ na nee na ku tàmbali woon naafila wëlbatiku daal koy jekki-jekki bàyyi ci tey mooy naafila ba yàgg rek mu dagg ko daal koy bëgg a bàyyi koy wax ne ko faaw nga war ko àggale ndax warula woon waaye bu nga ci xës si dugg daal nay soppiku lu war ba tey bu fekkoon ne day naafila tey ko bàyyi ca ab ab rukkoo mbaag baa mu bàyyi ca rakk bi lëm ñëwee rek moom lu mu ci mën doon daal moom ñoo bëgg wax ne naafile warutoon waaye bu ci xasee dugg day nekk lu war kon bu tàmbalee naafile ba noppi dagg ko mbaa mu bàyyi ci farata suñ koy wax ne ko ay ca daal di tàmbaliwaat defaat naafile gi na ware ndax warul woon waaye ba nga ci xasee dugg daa soppiku lu war wa zu tanahudin boroomuk ajet wala boroomuk sërxët isaalam yantiqan dem tuddut bil xarfi ci araf laa shay addi dara xaalis di ko war mutlaxan ci lu mani doon tanahada mel na ne ajet giñ ci wax yell na ci ndax buñ koy firi ci arab dañuy wax tanafasa assuhadaa mooy noyyi na noyyi gu kawe kawe moom nag ku julli def ko waxaale wu ca wenn araf kon dara du ko ca war bu fekkee waxaale na ca wenn araf nag mu wenn araf feeñaale na ca ca na mu noyyee noyyi gu kawe ñu seet ba xam ndax moo ko tey wala teyu ko su fekkee da ko tey julli ga day yàqu mu mel ni wax bu fekkee ne teyu ko kon na sujjoot bax de salaam wa in saha dem juum na imaamu ilimaan ba bi nuqsaani ci wàññi awi siyaadati wala dolli mina nisiyaani ngir fàtte wa anta te yow xalfahoo nekk nga ci gannaawam fa sabbihan na kon na nga bi ci moom yaa ayyuhal ma'muumu yow maamoom mi kay maa yanta bi ngir mu yew nee ilimaan bi lay jiite boo gisee mu nar a mbaa mu nar caa ca lu ca bokkut kon nga wax subhanallah boo ko sàbbaalee xëy na mu fàttaliku ni moom kat mi ngi bëgg a yokk mbaa mi ngi bëgg a wàññi wa in yaqum ndéem dafa jóg min rakkaatee ni bàyyi ci ñaar rakk man ka nga xam ni am ma jiite na qabla an yajlisa njëkk muy toog fa sabbihan kon nanga ko sàbbaal aydan ba tey ba tey nee na sa ilimaan bu amee ñaari ràkk ñu diggaleen ko toog taaya taaya digg moo na mu daal yëkkat daal jóg bëgg a jëm ci rakkam ñetteel mu ne kon da koy sàbbaal ndax mu fàttaliku ne foofu am ñaareel la na fi toog taaya taaya digg ci kaw nag nga gis ne ay loxoom ak ay bëti woom ba tey am na ca luy laal suuf mbaa lépp ngay laal suuf waaye soo gisee ne ay loxoom ak ay bëti woom dara laalut ci suuf kon na koy bàyyi rek mu jàll nañ waxoon bu ko defee ngeen sujjóot nag xabla salaam ndax bàyyi gañ bàyyi taaye digg ja akub jataayam mooy laakin waaye ida faaraqa ndem caqalikoo naag ardan suuf bi yeddin ci loxo waruk bët ak bëtiwoom fal taq fufu kon nanga ko toppi nanga ko xentu mooy nanga ko toppi rek yaa mokk te diw aji roy ji su fekkee ba amee ñaar ba nu yëkk seetlu nga ne dem na ba ay loxoom ak ay bëtiwoom dara laalutu ci suuf kon danga koy bàyyi mu jàll rek ko defee nag dañ ko waxee léegi rek ñu jël taayu digg daal di koy sujootal xabla salaam waxum na nga jóg ida jàll sa ndéem toog na al ilimaan ba fil uulaa ci ràkka bu jëkk aw rakkat wala ab ràkka taalisatin bu di aj ñetteel walantu laamata deefu la yedd ay li mu ci namm mooy laa takkun bul nekk rek maxal imaam yi di ànd ak ilimaan ba fil julóos ci jataay ba li annahu ngir naka moom xayru mahallin du béréb li julloo si ñel ab jataay nee na ilimaan ka des ko war a topp waaye nag boo gisee ne na mu defee duna kon bul ko ca topp niki mu am benn rakk képp daal di bëgg a toog foofu taaye xam nga benn rakk du béréb bu toogukaay wala mu am ñetteelu rakk te fekk na du timis ndegam du timis rek moom ñetteelu rakk du béréb bu toogukaay kon bu naree toog ci rakk bu jëkk mbaa rakkam ñetteel te du timis da nga koy wax subhanallah daal di koy sàbbaal kon bu ko fekk ca jataay ba ndax xam nga foofu di bëri bu jataay da ngay jóg taxaw kay te sàbbaal ko waaw da ngay jóg taxaw te sabal ko ngir mu xam ne raaka bu jëkk kenn du fa toog raakam ñetteel bu fekkee timis kenn du fa toog wa in imaamu ndem ilimaan dañ koy bañ bu dee ci naxwu ba tey boo nee wa in sajada ndem sujjóot na bëgg cee teg imaamun bii ngay séen ci dañ koy bañ am nañ koy làqar ci waaye nag ku toll fii moom mën naa jàng ni mu ci moom rek ba kay mu koy weesu ngaa wax rek wa in sajada ndem sujjóot na ilimaan fi rubaahi ci jullit ñeent rakka waahidatan benn sujjóot faqa dong li sax ngir juum warada boobu rot na fa sabbixan kon na nga sàbbaal bi ci moom wala taqum te bul jóg maaxoo ànd ak moom maalam taxaf li fi ragaloo xaq da rukkoo xin fas ab rukkoo fat ba xax kon nanga ko toppee li muy wax ni mooy ilimaan sujjóot benn sujjóot dong ci ràkk ba daal jóg bëgg a jàll fàtte sujjóotu ñaareel ba kon nanga koy sàbbaal nag te bul jóg ànd ak moom nanga koy sàbbaal ndax mu del si fàttali ko ne moom kat benn sujjóot la sujjóot te ñaara fi war a dëkk ñaara fi war a nekk lu may nag moom jóg na taxaw te boo yeexee mu daal di sëgg rukkoo ca rakk boobu mu taxaw soo ragalee mu fas rukkoo ba ne moom maanaam boo jàppee ne moom du dellu si te boo yeexee rakk boobu mu taxaw di daal di sëgg rek rukkoo kon say boo far ko toppi rek ànd ak moom boo ko toppee ci noonu nag nga xam ne kon xam nga ne boobu rakk benn sujur rek lañ ca def defuñu boobu ñaareel ba kon lay topp la ca topp mooy tumata sa na topp bu toogaat baax de zalika ci gannaaw loolee maa xoo moom fii saaniyatin ci ab ñaareel aw raabihatin wala ab ñeenteel ndegam far nga ko topp ci taxawaay ba te xam nga ne rakka bee bàyyi nañ ci ab sujjóot kon xamal ne booba rakk kenn wañu kenn du ko wàññiwaaleete ndax nee nga woon ab rakk boo ci bàyyee farata jàll ci ba ci sës ba rokkoo ci ba sigg rek jeex na doo ko wàññiwaaleete léegi kon nag xam nga moom bu defee nii ba àgg ci ñaareel ba day defee ne ñaareel la bëgg a toog foofa taaya waaye su boobaa yow bu toog taaya jógal taxaw ndax xam nga ne loolu benn lay doon su àggee ci ñeenteel ba day bëgg a toog foofu taaya fekk na dum ñeenteel am ñetteel la ndax benn ba yàqu moom la wàññi waale wut tax nag kon yooyu jamono bu toogee fa mu defee ni ñaareel la bul toog moom fa defee ni ñeenteel la bul toogandoog moom fasit na nga dolli ida sallama ndem salmal na uxra beneen ràkk ba daral mu dig wecci minal lëtt yi ci rakk ba nga xam ne alqaytaha waccoon nga ko fiima ci la nga xam ne xalaa wéy na wéy na wakkunte nga nekk baaniyan di aji jokk wasjudante nga sujoot xable salaami ci njëkk sëlmal li jam xi nuqsaanin ngir boole wàññi wa seydin ak dolli yaay na nga wattu alkalaama wax ja lu mel nii bu la dalee taaye digg dalay raw ndax ndekam fu ilimaan jàppee ne ñaareel la ba fay toog yow doo fa toog ndax xam nga ne beneen la fu mu defee ne ñeenteel la ba di fa toog yow doo fa toog ndax xam nga ne ñetteel la fa a toog kon yow doo fa toog xam ne kon taayi digg moom faaw raw la waaye fa nga war a toog rek mu taayi digg moom faaw mu raw la su boobaa loolu ak wàññi lay doon ak yokk bi yokk bi xam nga ko mooy ràkk boobee nga xam ne dañ caa bàyyi woon benn sujjóot rek te nga weccee ko beneen ndax dane bu ilimaan sulmalee da ngay indiwaat beneen ràkka wecceeku boobee nga xam ni moom la ilimaan yëgutoon ni bàyyi la jóg sujjóot te yow xam nga ko bu wàññiwaale woo ko bu ilimaan salmalee da ngay indiwaat beneen ràkk wecceeku booba su boobaa nag kon na nga sujjóot xabla salaam ndax boole nga boole dolleeg wàññi. loolu nag bu ci suba mbaa ci timis moom dolli kese moo fay am nga waaye bu fekkee dalaa dal jullit ñeent ràkk nii moom kon da ngay boole dolleeg wàññi ni ñu ko waxee léegi. ndax fa nga xam ne mooy sa tooguwaay ca taayi digg ja doo fa toog benn yoon kon loolu ak wàññi lay doon su ko defee nag kon ràkk booy boo ko fayee benn ba àggal kon boole nga dooleeg wàññi da ngay sujjóot xabla salaam amma jamaahatun daal mbooloo fa taqdiimu waahidin jiital kenn yuttimu kook dana mottali bihim ak ñoom bihimoo nag mooy nekk ci way wi nat bul ak sopp la laxum ñeel leen nee na lii bu fekkoon ne mbooloo la dal nga xam ne ilimaan bi leen di jiite daal moom daa sujoot benn sujoot fàtte sujootu ñaareel ba ñu saabal ko saabal jël si ñu far ko toppi xam ne kon am na benn rakka bu kenn wàññiwaale wut ne loolu bu fekkoon ne mbooloo la dal ban wax ne bu ilimaan sëlmalee ñoom mbooloo ma ku nekk day julli ab rakka fayee ko boobee nga xam ne moom lañ limaale wut kon nee na la gën mooy kenn ci ñoom jiite benn ràkk boobee ñi ci des topp ko ñu def ko mbooloo moo gën kenn ku ne beral sa bopp sa ràkk bopp teew na bu kenn ko ne beralee bopp mu ràkk bopp mi tam mu baax insaada ndem dolli na imaamu ko sa ilimaan sajadatan ab sujjóot taali sa tan bi aj ñetteel aw raabi wala buy aj ñeenteel falaata sa kon bul sujjóot maa ànd ak moom ba li fi nekk xam na nga sàbbaal bi ci ci moom wala tëji te bul dikke bi ci loo xam ne yakun dana nekk zaydan di ndolleen xolima loolu xameef na ko fi salaati ci julli ga nee benn rakk bu ne xam nga ne ñaari sujjóot dong la war a am benn rakk bu ne ñaari sujjóot képp la war kon nag bu sa ilimaan sujjóotee ñetti sujjóot mbaa ñeent gannaaw bu mu defee ñaar yow bul ko topp ci sujjóotu ñetteel ba mbaa bu mu ñeenteel ba da koy sàbbaal ndax mu fàttaliku ne ah moom kat sujjóot ne ñaar te ma ngi koy yokk ñett mbaa ñeent moo tax mu ne bul ko topp ci loo xam ne wóor na leen ndoleen la wa in xaama ndéem jóg na al imaamu ilimaan ba ilaa siyaarit jëm ci dolli tabixawoo kon topp ko moo xinu moo jibil xiyaami aji wóolu la waral taxawaay ba wa misluhoo te am kemam layit du shakk boroom sikki sàkk fii ci moom su ilimaan jullee ba li mu rakka ya mat mu jóg nag di ko yokkaat mel ne jullit ñeent rakk la mu def ñeent jóg jëm ci juróomeel mbaa jullit ñaar la mu def ñaar jóg jëm ci la mu def ñett jóg jëm ci ñeent kon neen dañuy seet koo xam ne wóor na la li ilimaan def noonu la ndax daa benn rakk boo xam ne yàqu na wàññiwaale wu ko moo tax mu jóg ne kon yow da koy toppi ndax ndegam xam nga saw si rek kon yow topp ko ci jóg boobu mu jóg ba tey koo xam ne sikk sàkk wóoru ko ba xam li ilimaan def lu war a am la wala warta am kooku ba tey na ko toppi mu des na koo xam ne wóor na ko ne ilimaan day yokk rek waaye rakk yi weesu benn manqué wu ci dara yépp baax na lii mu def dolleen dong la kooku nag mooy wajal sa ci toog man nga xam ne tayaqana wóolu na asiyaadata ndolleen la faqis na nga nga xam ne wóor na ko yokk rek moom waaye li mu weesu dara sikku ci kooku moom na toog te sàbbaal ko kooku na bu toogee te sàbbaal ko te ba ilimaan noppee leeralut la waral mu indi rakka boobee kon julleem dana baax waaye nag yooyu yaar la koy tax a baax li moom kooku mooy yooyu yaar mu sàbbaal ilimaan ba noppi ilimaan ba mu sëlmalee leeralul ne nangama tax kat mu indiwaat rakk boobu waaye su leeral ne ne nangam kat moo tax mu indi rakk boobu tamit lu wër rek moom moom may toogoon moom julleem du baax in jalasa toog na al ma'muur ka ñu digaloon bil xiyaami ci jóg aw xaama wala jóg man ka nga xam ne ujuli sa loo foon na ko fil kalaami ca wax ja fa batalat kon yàqu na salaatu kullin julli kenn ku ne min humaaj ñoom ñaar fi suura tey ci yaari melo ya indaman fa ka nga xam ne xadd fahima dégg na nee kenn ku nekk lañ ko digaloon bu ko wàccee rek ak juleem yàqu ka nga xam ne wóor na ko ne ilimaan ràkka bi muy indi noonu la war a demee kat ndax lee wees daam am bu ci yàqu mbaa wóoru ko waaye ma ngay sikki sàkka ko dañ ko waxoon ne ko jógal toppi ko kooka nag bu fekkee toppul ilimaan xanaa toog bañ a toppi ilimaan julleem day yàqu ba tey ka nga xam ne moom dañ ko ne woon toogal ndax yow wóor na ne ilimaan day yokk donc li mu wees dara sikku ci dañ ko ne woon yow toogal bul ko toppi kooka tam bu jógee toppi ko xët ndigal julleem yàqu tax ma ne ku ci nekk lañ ko wax rek bu ko bàyyee julleem yàqu boo dee xool saraaba nag day leeral ne koo ci xam ne defoo lañu la digaloon te tey ko ni ko yàq bi waxe rek ak julleem day yàqu waaye da cay boole nag ne in lam yatabayyan annama faaluuhu min al muxaalafati muwaafiqun lima fi nafsi al amri amma in tabayyana liman xukmuhu alqiyaamu fa jalasa muwaafaqatu fi'lihi lima fi nafsil amri bi an tabayyana lahu walil imaami xadamul moojibi wa siyaadatu tilka rakxati fa qaal alxataab alzaahiru sixatu salaatihi wala tadruhu almuxaalafatu walam yanussa ala haza xayrul xataab maanaam ki nga xam ne dañ ko waxoon ne ko jógal toppi ko ndax yow jàpp nga ne ilimaan jóg gee mu jóg ca ràkk ba lu jaadu la ndax daa am bu manqué moom la koy mottalee moom nag mu toog bañ koo toppi kon gannaaw ba bu ilimaan sëlmalee te wax ne ah man kat damaa juumoon rek waaye rakk boobu moom ndooleen dong la yi ma weesu kat dara sikku ci kon xam nga moom ñu waxal ne toppi ko toppiwu ko waaye lam def boo ko dee seet ci dëgg-dëgg mbir mi lam def la ilimaan waroon na def ilimaan a juumoon rek kon xattaab moom nee na kooku julleem baax na ñàkkam ñàkk a topp ilimaan ba te fekk lam def bañ ko seete noonu naa waroon a am ilimaan a juumoon rek di yokk kon du yàq dara ci julleem waaye loolu nag mennum xattaab rek moom lañ gis mu wax loolu gis ñu keneen ku leeral lu demee noonu wa amma man xukmuhu al julusu fa qaama amdan suma tabayyana anna al imaama qaama li mujibin